mbokk internet yi ñu ngi toogook ki nga xamante ni ñu baree bare ci làmb xam nañ ko xam naa ne ñun xale yi nga xamante ni ñoo mujjee judd xamuñu ko muy suñu papa Faga 2 euh, papa ñu ngi lay man euh, man nag Faga mu nga fële waaye ba tey li nga wax juumuloo parce que euh, ci écrit booy bambara laa bokkoon ñun nag ñoo nekkoon ay xaleem gannaaw yàlla it li ñu mën a wax ci booy bambara mooy leen baax yaatu jullite loolu xam nañ ko ci moom. ba ba ñuy nekk ay tuut tànk ñun ñii di dugg ci mbapat gannaaw yàlla moom moo moo ñu xëcc booba ñi fa nekkoon ku ñuy wax euh, Baye Sikkim ak Mayaasin Gueye ak ku doon wax Jegaan ak Boy Diouf ak man mii di wax yow di Malaw ak Góora fay ñu ni ñoo encadré woon Boy Bambara ñu demoon a dem a dem nag ba moo jóge ci boppam daanaka euh, sunu génération bi yëpp ci mbappatu Boy Bambara la ñu ko muy classe ak Aline Sey gi Birahim Ndiaye Ambroise Sarr Mbite Ndiaye ñooñu ñëpp daanaka ti bu ñu feeñee rek ci mbappatu Boy Bambara la ñu kii booba la bu ñu jógee laasana ñu ñëw nim daat waaye nag ci li ma lay xamante ni gàtt li ma lay gàttal daal HLM la mujj woon def foofu mbapat mu kii ginnaaw gi itam ñu ñëw boori marché ngelaw teg foofu mbapat ñu jógewaat fa ñëw ñaari tali. loolu yëpp yan kàddu seede nga ñu mën a jox ci ki nga xamante ne mooy aji dem. aji dem ji daal li ma la mën a wax mooy ku ñi woon njaboot la ku bëggoon ay kilifaam la bëggoon ay kilifaam. bëggoon nay ndoom bëggoon nay xaritam booy it amul woon benn jafe-jafe jafe dafa wàcceen boppam ci mboolem koo xam ne rek xam na la mu nekkoon koo xam ne itam du la xelel mukk ci loo xam ne ci lu jëmul ci yoonu yàlla du la xelal mukk ci loo xam ne da lay gaañ ëllëg ñun ñii ñëpp daf ñu daan toog di déplacer këram di ñëw di ñu fekk suñuy kër li gën a jafe ci mbag mbër foofu la ñu daan fekk. bu ñëwee fekk toog ak suñu waxtaan ak suñu kilifa waxtaan wu yiw waxtaan wu jekk bu rafet bu wëlbati ko waat suñuy kilifa yëkkatiwaat joxaat ñu booy naan leen seen seen i rakkangoog yàlla itam li ma ci li bëgg wax lépp mënu ko wax waaye nag yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla nañ ko yàlla def xolam yàlla na ko yàlla xool atte ci ci xolam atte ko